xibaar yi ñoo ngi ciy ànd ak Serigne Khadim Mbacke général Serigne Khadim Mbacke général nag sët la ci Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke nekk Serigne Lasrar bu yàlla may Lasrar nag bu ñu ko waxee lépp ngi ci moo xam wàllu noob ak wàllu ñaan sëriñ bi yàlla may na ko lool ci wàllu woowee waaye sëriñ bi dafa am ñetti jaaru yu doy waar ba ca njëkk nag mi ngi tudd mulku suleymaan mulku suleymaan nag ñi yëngu ci lasraar war nañu koo xam mu nekk jaaru bu baax lool sëriñ bi am na yeneen jaaru yu doy képp ku jokkoo ak moom dina la ca jox ay leeral sëriñ bi nag yàlla may na ko lool ci góor ñi nga xam ne dañoo tëlee maanaam ñi dem ba mënatuñu ak ñi nga xam ne dañoo gaaw a yëg seen bopp nee na saafara bi mu lay jox ci kaw cin ngay taxaw sangoo ko foofu ngay yëgee sa bopp kon jokkoo leen ak moom waaye sëriñ bi tamit yàlla may na ko lool ci wàllu seet ak wàllu ñaan ak wàllu kubbeekaay ndax ngit nit ki kat pour ngeen jëflante faw mu seetal la ba noppi te wàllu seet ak wàllu ñaan ak kubbeekaay noobit yàlla may na ko ci lool moom sëriñ xaadim mbakke général wàllu nopp boobee nee na képp koo xam ne da nga am sa soxna wala sa coro boo ne ko benn mu ne la fukk boo ne ko toogal mu taxaw bu ngeen jëflantee dina dëppale seeni xalaat jubale leen boo ne ko toogal mu toog boo ne ko nañ dem du ca teg baat sëriñ xaadim mbàkke général yàlla may na ko lool ci wàllu lasraar sëriñ bi nag képp ku bëgg a jokkoo ak moom ci numéro bii nga ko mën a jotee muy 77 341 67 67 77 341 67 67 képp ku jokkoo ak Serigne Khadim Mbacké général yal na sa aajo faju laata ñuy door xibaar yi ñoo ngi wéy ba léegi di leen présenté application bi tudd Sofascore Sofascore nag application la boo xam ne day yëngu ci wàllu tàggat yaram rawatina football ku ko amagul dawal léegi nga téléchargé ko ngir am ay xabaar yu wér te wóor waaye tamit jaaree ko ci lien bi nga xam ne moom la ñuy def ci description bi ak ci commentaire yi ca jamono joojee yaa ngi dimbali King Ouse Ngary TV kon daw leen téléchargé ko am xabaar yu wér jëm ci tàggat yaram ñu door xibaar yi dooree ko ci équipe nationale U17 bu Sénégal seenub liste siiwal nañu ko ngir jongante tournoi UFOA A mi ngi amee fii ci réew mi tournoi boobee nag équipe nationale U17 yi ñoo koy jongante bi jeex bu yàggul mooy u yi maanaam équipe nationale yi nga xam ne seeni at rombagul vingt ans bii nag ci réewu Sénégal la ñu koy jongante Sénégal war naa jongante ñetti match su ca amee ndam yépp maanaam bu jëlee pied ci poule bi mu nekk day qualifié directement ci CAN U17 bi atum 2025 la ñu ko war a jongante Sénégal dina jàkkaarloo ak Libéria dina jàkkaarloo ak Gambie dina jàkkaarloo tamit ak Guinée kon nañu ñaanal équipe nationale U17 bi tournoi boobee ñu jagleel leen ñu doxal ca am ay ndam ngir mën a qualifier ci CAN U17 bi. ñu jugee ci équipe nationale U17 bu Sénégal ak tournoi boobee di leen xaar jël doomu Burkina Faso bi ak France tudd Alban Lafont moom nag vingt cinq ans la am ma ngay góolu ca Nantes soo moytuwul nag balaa yàgg dina tànn réewam di Burkina Faso ngir góolul leen naam njëkkoon nañu ko woo équipe nationale bu Burkina Faso mu lànk ndax nee nationale A France moom nag équipe nationale yu ndaw yu France yëpp góolu na fa équipe nationale A bi sax mos nañu ko faa woo wut ak ñoom benn match xaar na nag ba xaat di nee na jamono ji noppi na bu ko Burkina Faso woowee mu dem góolul leen ci fàttali moom ca Wagadugu la juddoo capitalu Burkina Faso waaye dafa dem ca France lank ka ne du góolul waa Burkina Faso équipe national A bu France lay xaar waaye booba léegi nag woowuñu ko noppi na nag ngir déglu leen bu ñu ko woowee mu dem jàppale leen muy Alban Lafont di góolu ca naan ñuy jugee ci Alban Lafont ak i bëgg-bëggam jël doomu France bi tudd Boubacar Camara di football ca Aston Villa waaye nag dafa amoon blessure bu métti lool muy ligament toog na huit mois maanaam juróom-ñetti weer duggul ci terrain football jamono jii nag wér na suba incha allah këlëbam di Aston Villa bu 14 jotee dañuy fekk ci list ba dinañu ko ca boole ginnaaw bi mu amee huit mois dugul ci terrain football moom Boubacar Camara moom mi nag ci fàttali dafa waroon waa Sénégal ndax dañ ko doon waaja woo ci équipe nationale bi mu bàyyi ñu dem ci équipe nationale bu France wax nag jigul bant sàkkantuma laak nit kon nag blessure bi mu amoon wér na moom Boubacar Camara suba incha allah mën ngeen ko gis mu doxal wala mu toog ci bangub Aston Villa. ñu jugee ci Boubacar Camara ak xabaaram bu neex dem ca waa Chelsea jël seen capitaine bii di Reece James moom nag ak wér na na ngir doxal ak waa Chelsea loole nag du samay kàddu kàddu Enzo Maresca la li mu xamle moo di doomu Angleterre bi noppi na ngir jàppale leen waaye jamono ji nag noppeegul à cent pour cent ndax Enzo Maresca nee na benn semaine munu cee football ñaari match semaine bi bu ñu ko football benn match dañu koy noppal ngir mu dallu récupérer pour ñëwaat à cent pour cent loolee la xamle moom Enzo Maresca. ñu jógee ci Reece James ak xabaaram bu neex dem ca waa Manchester City foofu nag am nañu fa ñaari xabaar benn bi neex na benn bi neexut ci bi neexut la ñuy njëkk ndax doomu pays ba bi tudd Ake wéragut bu ñu sukkandikoo ci Pep Guardiola nee na nag mi ngi yëg tan waaye ñëwagut léegi dina dallu ba ci kanam mu door a mën a ñëw jàppale leen ñoom waa Manchester City kon dimanche bu ñuy jàkkaarloo ak Wolverhampton du mën a bokk ca match be moom Ake bii nag neex na ndax Kevin De Bruyne yi nekk doomu Belgique dafa amoon blessure wér na dimanche incha allah. bu mën Manchester City di jàkkaarloo ak Wolverhampton mën naa am mu bokk ca match boobee doxal ndax noppi na à cent pour cent ñu jógee ci waa Manchester City dem ca waa Udinese ñoom nag suba incha allah dañuy jàkkaarloo ak AC Milan match boobee nag wóoragul dara doomu France bi tudd Thauvin bokk ca ndax dafa am blessure bu ndaw Di Marzio nee na doomu France bi amal début saison bu baax ak waa Udinese wóoru dara suba mu bokk ci match bi war dox ci diggante AC Milan ak clubam di Udinese ñu jógee Tovin ak xabaaram bu naqari jël doomu pays bi tudd Kevin Strootman moom nag nee na bàyyi na football tey jii la doomu pays bi siiwal loole ay jamono nag nekkoon na ca AS doxal fa club bu ñu naan Olympique bu Marseille tamit doomu pays ba bi jaar na fa moom Kevin Strootman waaye nee na bàyyi na football maanaam tekki na godaas yi. ñu jógee ci Kevin Strootman ak ndogal yooyee mu jël ci ëllëgëm dem ca waa Barcelone ñoom nag dañoo bëgg lool doomu Brésil bi tudd Guillermo Doginan gone gi li muy def mën na ko lool. quinze ans képp la am ndax ci atum 2009 la juddoo waaye moo tee nelaw waa Barcelone Barcelone nag li ñu bëgg moo di matal ay mbiram léegi xaatimal ko contrat bàyyi ko ca Brésil gi mu nekk club bu ñu naan Flamengo ba mu am 18 ans ñu door koo jëlee ca Brésil indi ko ci seenu club mu doxal moom moo doggi naan nekk gone gu footballu Brésil am ci moom yaakaar xibaar boobu esport moo ko xamle ñu jóge ci dogina ak bëgg-bëgg boobe waa Barcelone am ci moom waaye club boobee di Barcelone duñu leen bàyyee gum dañuy jël seen góol bi tudd Marc-André Ter Stegen mi am ligament ginnaaw bi ñu ko opéré ak tey ji nag ci weer kepp lay toll waaye jamono ji mi ngi yëg tan bu baax fa ñu opéré woon mi ngi yëg tan te góom bi gëmm na waaye nag wéragul à cent pour cent commencé na entraîner nànk-nànk waaye ñëwagul léegi loole nag xibaar bu neex la ndax mi ngi yëg wér bu baax moom Marc-André Ter Stegen ñu jugee ci teer ak xabaaram bu neex waaye ñoo nga Barcelone ba léegi bu ñu sukkandikoo ci Matteo Moretto Barcelone ak doomu Espagne bi ñu naan Fermin Lopez jubo nañu ci lépp milieu de terrain bi dina yokk contrat ba atum deux mille vingt neuf jubo ci lépp am na li ci des moo di officialiser ko te balaa yàgg waa Barcelone dinañu ko officialiser bu ñu noppee ci mbir moomee nag li ñu bëgg moo di songu mbiru ñii may waaj a lim muy Gavi Pedri.